الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي دين الإسلام لول واحد لا إله إلا محمد رسول الله لول باي لا إله إلا الله محمد رسول الله جلي جلي جرو جلي جلي جرو ويركور xoor weeru koor génn asaka ci ko am alal génn asaka ci ko am alal xaj néegab yàlla ba ci ko ci am kattan yooyu juróom ku ko matal matal nga ponk lislaam yooyu juróom ku ko matal matal nga ponk lislaam ku lott ku lott nag ci dem makka dem makka ku lott ci dem makka ku lott ci dem makka dem makka warul dem makka ku xamul alal jooy génne asaka ku xamul la yow génne asaka waru la yaar yi war kay te ñëpp la war te du yaar yi war te ñëpp la war te wàccu kenn ba nga jëwantee ba ba ngay dee. ba nga jëwantee ba fa ngay dee. muy góor muy jigéen. muy góor muy jigéen. muy ku mag muy ku ndaw. muy ku juróom. kooku moo di julli juróom. ak war weeru ko. yoo xam ne julli. julli. war na képp ku génn. war na képp ku génn. kenn sañ da bañ a ñàkk kenn sañ da ñàkk a julli. kenn sañ da ñàkk a julli. tey jullit. tey jullit. lu may jigéen ju amee mbarab. lu may jigéen ju amee mbarab. nga xam ne moom julli tegeeku na ko. kooku moom te na ko. waaye ku kooku. waaye nag ku duwut kooku. jullit bu sañ a ñàkk a julli. di jullit bu sañ a ñàkk a julli. man xamu ko fenn. bàyyi la moom day xam ko fenn moom. julli moom du wàcc jaam mukk. julli moom du wàcc jaam mukk. feeg mi ngi dund. feeg mi ngi dund. su tukkee. su tukkee. mën na ko wàññi. mën na ko wàññi. bu doon julli ñeent mu julli ñaar. buy julli ñeent rakka mu def ko ñaar. su xoppee. su xoppee it. mën na koo julli nam mëne. mën na koo julli te nam mëne ca xapp fa. su mën da taxaw mu gappariku. su mën da taxaw mu gappariku. su mën da gappariku mu tëdd. su mën da gappariku it mu tëdd. tëddee wetam ndeyjooram. te dee te ndey joram. jublu penku su ko mënee. jublu penku it bu ko mënee. su ko mënul mu tëddee wet ak càmmoñ jublu penku. jublu penku. su ko mënul mu jaaxaan. su ko mënul mu jaaxaan. waaye waaye du tax julli wàcc. waaye yooyu yëpp day tax julli wàcc la. ba ba muy dem bee. ba ba demee bee. man de jullee lu mooy. man da jullee lu mooy. kabar naa. kàbbar naa. jàng naa. jàng naa. rukkoo naa. rukkoo naa. sujjóot naa. sujjóot naa. topp ko noonu ba mu jeex. topp noonu julli di ko def noonu ba mu mat. bu fekkee yaramam yëpp lott na ba wax loolu ci xelam rek noonu la mën a julli. bu fekkee yaramam lépp dafa lott ba wax noonu ci xolam rek la man. loolu war na ko. koy taxu julli wàcc ko war na ko. xanaa bon julli du wàcc kenn. kon kay xamee nañ ci ne julli moom du wàcc kenn kon. diggante teqale. teqale diggante jullit ak ku dul jullit. ak ku dul jullit. moo di julli. mooy julli rek. kuy julli daal jullit nga. képp kuy jullit nga. képp ku dul rek doo julli. képp ku dul julli jullit. waxuñu ko yonent bee ko wax. waxut ko képp yonent bee wax sallallahu alayhi wa sallam. julli nag. julli nag. yi yàlla waral yëpp. yi yàlla waral yëpp. jibril la wàcc ci suuf. jibril moo wàcc ci suuf. waxal ko yonent bi. waxal ko yonent bi. lu may julli. lu may nag julli. julli moom. julli moom. dañoo yóbbu yonent bi. dañoo yóbbu yonent bi. mu yegg asamaan juróom-ñaar. mu yegg ko sàgganee. mi julli bu ko kenn sàgganee. te julli. te julli. dana tere def lu bon. danay tere def lu bon. yàlla wax na ne. ndax yàlla wax na ne. julli. julli. dana teree def lu ñaaw. dana teree def lu ñaaw. ak luñ sib. ak luñ sib. yàlla wax na ne. yàlla wax na ne. sa njaboot ñuy julli. digalal sa njaboot ñuy julli. yow saxal ci julli. yow saxal ci julli. laajuma la seen wërsëg nag man maa ko gàddu. laajuma la seen wërsëg nag man yàlla maa leen ko gàddu. moo tax kuy jubal julleem bul yërëm njabootam. moo tax képp kuy jubal ak julleem ak njabootam képp ku sànq julleem itam yërëmal ak njabootam képp ku sànq julleem it yërëmal njabootam loolu mooy jaamu yàlla loolu moo di jaamu yàlla jaam bi nag su jamu boromam ba noppi Jam bi nag bu jaamoo borom bi ba noppi des na xàq yi ko war digganteem ak jaamu yàlla yi des na xàq ji ko war digganteem ak jaamu yàlla yi mbindeef yëpp njaboot ak ak bëgg ku baax ci ci loofaar jaamu yàlla la goo xam ne góor mën na ko jigéen mën na ko jaamu yàlla la koo xam ne góor mën na ko jigéen it mën na ko waaye góor luy ngóoram waaye góor nag lay ngóoram gannaaw julee xoor gannaaw julee xoor muy sonn ci loo xam ne fay jëriñ ñëpp mu sonn ci loo xam ne daf fay jëriñ ñëpp loolu mooy liggéeyab góor loolu moo di liggéeyab góor na ngeen góorgóorlu na ngeen góorgóorlu jaamu seen borom jaamu seen borom te di góorgóorlu tey góorgóorlu ci lépp luy jëriñ bindee ci